tey tey képp kuy aawa mere nga laal la laal fa mu waroon demee fa mu waroon dofe moom la dofew fa mu waroon dof dof loo la dof dof loo ndax ñu indil la jigéen sa biir néeg nga xam ko dëgg sa tànk sa jëkkër di ko xam nga xam ko dëgg sa tànk sa jëkkër takka jabar nga ni da dof mais laal la mu du joué na ko continuer dafa continuer ndax tey si tey idol la woon royukaay la woon man dama ko faamoon ndax li mu xam jëkkëram day doxaan mu teg ci tànkam jëkkëram indi gel bi ba si biir néeg mu teg si tànkam noppi yooyu yëpp te teewul toppatoo jëkkëram carrément wanu ko benn kan woo xam ne si kii xam na ni day doxaan wala kii xam na ni doxaanu deful loolu laal lépp la teg tànkam ma ngay toppatoo jëkkëram ma ngay def de kon bu mu sàgg sag boobu li mu amoon way mu amoon ah wayu aaw bi mu amoon aawa yëpp am ko bu mu ko sàggi laal daal wax dëgg si yàlla mi ngi bëgg yàq suñu der nag daf daf la gi matu ko woon moom bu fekkee ni muus la ko jëleet muus mën na ko yóbbu feneen ndax tey si tey fu mu génn bis bu génnee hôpital ñëw daan ne dañ ko takkal wujj mu daf te way la dul fay ba faaw kon matu ko woon loolu daal neexoon na ma waaye kontaan naa ko